kontaan te ñëw fii nii ah, yoof seet fi benn xale boo xam si ni macha allah làmb da koy bàyyi xel donte ay combat am waaye gox bi mu dëkk gëm nañ ko te am nañ ci moom yaakaar bu baax a baax a baax ah, muy ah, Ama bu yoof SBT ñu ngi lay nuyu. bisimilah bisimilah inna wali yàlla ginnaaw bu ñu sant yàlla jullu si yonent bi sant suñu ñaari waajur di gërëm suñu sëriñ Babla Thiaw xalifa général des Layènes yal na ko fi yàlla bàyyi te wér ak njabootam gépp yow lay sant di la gërëm si teew bi nga teew fii nii di gërëm ñëpp di gërëm fi ma fekk nii pare yof nëngaañ xam ne su ma amee combat dañ si sonn dañ siy jàpp ñoom ñëpp moo dama def émission bi fii nii di la gërëm ah, ñëpp pour ñu tijji quoi waaw Euh, di nuyuwaat mbokki internet yi nga xam ñooy bàyyi xel SBT den wax ne leen SBT Média la seen émission seeti mbër ñu seet si xale boo xam si ne nii euh, làmb da koy bàyyi xel waaye nag di profité di nuyu kenn koo xam ne kenn la ci man euh, muy Baye Ndiène Thiaw di sama xarit di nit ku baax koo xam ne macha allah di ko siyaar baax di ko ñaanal baax di nuyu nag xalifa général di ñaan Baye Ablaye Thiaw mu yàgg fi lool te wér ak mbooleem njaboot ak Seydina Limaamu yëpp waaye noonu la ñu nuyoo Yoff euh, bu ngeen ko xoolee xam ne xale la waaye làmb daf koy bàyyi xel euh, ci lu gàtt tey bu doon wax kan mooy Ama ak la mu wax boole ak làmb. benn booy bu nekkoon su koom yi fii la di bëre gis samay mag ñuy bëre ay kii ngay gis ne ay maasaan ñoom ñëpp leen daan bëre moo topp seen ginnaaw di leen seetaan di leen teelu ci ba yàlla def tey jii nii mu commencé bëre gis suma mag Demba Thiaw muy bëre ma suma mag la ñëw bokk kër mu doon su ma mag joo fu mu daa dem si làmba dama daa yóbbu ma koy toogali cumbukaay ba mu dem ba làmba ji adhéré ma ma dem ba bëgg làmba ji commencé dugg si di bëri ay tournoi dem ba yàlla def ma bëri arène nii waaw. ci côté sa xale tuuti ñu del si est-ce que Ama jàng na man jàng naa école wante jànguma école lu bëri de parce que jàng dese woon naa ko bëgg quoi waaw bu dëgg neexee rek jàng moom. ban classe laa bàyyee. dem sa ba sem deux mais yow sem un. dawam jàngam moom métti woon quoi. lan moo doon bëggoon jàng. non instant yii parce que géej ji mu ma jege ñoon dama daa dem mbogo mbogo ji am xaalis ñëwaat moo tax dama bëgg a jàng mi quoi damay dem am xaalis ñëwaat te suma gars yi dañ dem géej suñ demee ñëw ñu toog après ñu dem pilifoor bi dem bay ba loolu moo taxoon su ma jàngatee la yàqu hmm. euh, nga màggee nii am lu bëri rëccu naa ko si parce que bu démb doom tey mu gën a jàng quoi xam am na loo xamante ne da nga koy xam sax nga garder ko pour mu nekk sa bopp quoi wante réccu naa ko quoi wante tamit yoon bu jeexul waaxu sel du jeex mën nañ kaa dabuwaat kut ko kut parce que du wees quoi yaa ma gën a xam noonu la demee. yaa liir yaa ngi bind. man maa ngi liir tuuti tuuti nii saa saa suma pulaw yi ma mooy jàngal liir quoi Youssou waaw. boo amoon contrat nii mënoo ko liir dañ la koy liiral. boo amoon dañ la koy liiral. non dinaa xool contrat dina ba dinaa am loo xamante ne dinaa ko si cof waaw ñàkkuñu de way looy wax nii. bi nga xam ne njàngoom école français bi ah, doxul euh, est-ce que Ama jàng na alxuraan. waaw ah, jàng alxuraan moom jàng si trop yàgg <laughs> alxuraan de way gars yi daaray ngoon lay ma daa ñu dañ daa dugg huit ba sept heures di ko jàng. c'est di ko bu baax booba. buuba moom ma daan jàngal instant yi moom mu ngi déen sax gën ñaa koo gis buuba moom ma jàngal ku baax a ngoog noonu billaahi moo ñu daa jàngal dañ daa toog huit heures ba sept su ngoon di ko jàngal billaahi noonu la demee. mokkal naa am lu ma mokkal. xam moom yaa ma gën a <laughs> waaw bàyyi waay. man Sarr kay damaa bëgg rek xam nga xam nga fii SBT lépp di leeree xam nga te yii dafa am solo xam nga xale yi sa morom yi am na ñoo xam si ni ay xale yi ndaw lan euh, nekk seen buntu àdduna war a toll si jàng muy alxuraan muy français war a jàng métier yooyu yëpp dana ci ñëw war a ñëw ci métier bi incha allah mais damay bëgg ñu xam ñu xam ne tey fi nga toll nii yow en tant que jaar nga si xale mais tey réccu nga ñàkk jàng bi nga xam ne ñàkk nga ko jàng tey fan nga fan nga toll ban Sarr nga yem. waaw Sarr ma toll moom Sarr ma tolloon bëri na quoi waaw saar la saar yu bëri mën naa la kaa jàngal fi mu toll nii. saar yi mën a jàng ban saar nga bàyyee jàng. saar yooyu koy fàtte wante am na saar yu bëri yu ne sama boobu billaahi. Ah, waaw yooyu xeeb naa ko yooyu noonu booy di soog a jàng booy soog a ñëw école yooyu leen lay taaral ay kulon rabbil naas yooyu noonu malikin naas laahi naas mi sori wasa saxa naas allazi wasa fi duru naas mi na jinnati yooyu dafa yomba billaahi ñun ku juddoo yoo fii nii yooyu yëpp da nga koy mën waaw yoof dañ ñu teg si yoon de billaahi ne ko ñu booyele waa ñu toog si média di xànjoox yooyu waaw. ginnaaw bi nga xam si ni loolu yëpp def nga ko est ce que yaa li nga xam ne moom mooy moom mooy waxtu julli. waaw loolu moom bu dëgg neexee rek man fàttale ko ma bi ma doonee booy ba fu ma toogee julliwuma su yàlla rek kaa ma tiim nekkul média nekkul dara fàttale ko ma ko fu ma toogee nii julliwuma woon fàttale ko ma loolu bi ma xàmmee ba léegi man fàttale ko ma yàlla rek kaama ma tiim man fàttale ko man julli moom du ma ko fooye gars yi dañ daa jéene di bëri ji ay mbapat billaahi avant ñoo dem làmba ji ñoom ñoo may jiitu man tant que julli moo pare du ma dem billaahi ba suma combat bi mujj nii dama damay julli deux heures ñu ne maan ngembul mu ne leen damay julli pare barki arxuraan seekandaanam boo ko jëlee nga laaj ko may julli mu may ñëw di ma oose ne ma doo ñëw ngemb bi naa ngay taar ñu lay dagg ma ne ko loolu amul problème bàyyi mu julli pare billaahi man loolu moom du ma ko fooye ay julli ni nii non la siy gën a encouragé di wax ne loolu nga nekk mooy li nga xam ne moom mooy dëgg ah te léegi ñu ñëw si li nga xam ne moom mooy métier est-ce que am nga métier après. man waaw am naa métier damay ñëw téer la waaw damay ñaw de yàgg si tam mën naa ko am naa lu ma si mën tamit damay ñëw te damay dem géej bu ci dëgëree mu dem dugg si mbaari dem mbaari dem laaw yi waaw àndaa suma gars yi ko foofu. Hmm. dégg bu Yoff ah, fi mu wax ci xaleem fi mu jaar ci wàllum njàng ci métier ah dégg ngeen li nga xam ne si moom moo yàq métier am ah muy comme géej gi koo jege mu demee di jënd foofu ay mboja mboja xaw nu nga ko waxee jaay am weccat ah, dem pilifeur baak yooyu moo tax parce que am njàngam yàqu mais léegi ñu ñëw ci làmb ah, fan ak fan nga mbapat man fii ma mbapat bëri na de waaw man digg àll ma mbapat bëri na de dafa bëri rek fu ne dem naa fa ànd fa sama gars yi billaahi man suma combat bi mu suma combat bi nga ko jàppee dama fekk ma nekk si àll di mbapat billaahi ma maa Omar ba ñoo ànd onge ak Moustapha Kaabal gi ñoo ànd boobu ñuy nekk foo di mbapat foo lañ ma ooyee làmb jooju zoro mu xam sa cosaan billaahi moo ma daan sa sulóor bi kooku noonu booy boobu te daan bi ma daan dama metti bërewul dara mënul dara mu daan ma maa def lépp mu daan ma kooku noonu dinaa ko dinaa ko def si arène bi Zoro moo ngay gis moom ëpp fuuf de wante maa ko daax bëri parce que mënul dara. daal moo ta fi ne ni nga jëm a saltal yooyu léegi ginnaaw dëkk yi nga mbafat ba léegi waxu gooma ba maanaam yan dëkk nga mbafat est-ce ay mbengeen fii nga mbapat ak yooyu nekk fii man li ma fi mbapat yoo fii bëriwul ay mbuur ay Joal yooyu yëpp mbapat naa fa barki Alxuraan damay dem mbapat man damay damay liggéey ba jour Korité suba la ñuy xëy lan demee Korité àll bi day tëgg damay ni ma fee atelier noonu laa jëlee suma saak dem bëre ji barke arxuraan yàlla rek kaamati ma dem noonu bëre ji damay ñëw kër ga ñu ne ma xanaa doo toog noppale ko tëdd mu ne leen du gara bàyyi ma dem bëre ji ñëw damay dem compétir ji barke arxuraan man loolu moo ma si jéena damay dem bëre ji compétir yi da ngay dajee ne si àll bi ku ne ab bëreem façon bëreem wante man ku indi bëre bëre boo bëre jënd man jaaxal ma dara jaaxal ma si bëri man parce que damay daje ay ndaanaan bu ne billaahi man jël ay tournoi kañ bëri bëri na fi ma jël boo ne jël nga ay tournoi bëri na naa am jël naa tournoi Joal jël naa fi maa génn kii laa daje final kii laa daan dem final ma xam maa am nga xam ñoom ñoo après ñoom ñëpp comprendre non man fii nii bëri naa fi bébi jën daan na ma quart de final yoof caatu boogu maa yoof maa ngi amoon ñaari làmb bàyyi lu mengel ak tongoor boogu maa ngi bëri si làmb ji dem fa làmb jële ma ñëw fekk su may morom pul boogu fees ma dem ma ne damay bindu su luur bi ma bindu su luur bi gars ne damay dañ may jenca pour moo mën a sori su tournoi parce que ñi fi nekk ñoo gën a diis boo ay caatu ngelaw ñoo doon bëri si bi. rek jën kayre ji jour boobu bëri na si doomu yof moo ko daan mo caatu ngewal daan ki man bébé jën final moo ko zongale parce que dóor ka loolu suma kanam la bébé jën moo daan quart de final parce que arxuraanu karim te avant maa daan chance moo tax mu daan ma dama ko bëreloo ba war kaa daan ni mu ëlbati ma. billaahi wallaahi wa taalaahi yàlla. loolu moom loolu la moom. billaahi dama ko bëriloo nii dafa demi fa la sone xar ma ma jéggi si ginnaawam tëral ko mu albati ko instant yii moom ëpp doole barki alxuraan mu doonoon jàmbaar moo tax mu daan ma mu àndoon ñoom seen waa ikiri ñoom ñëpp a àndoon boobu ñëw foofu si làmba indi sa ñaari booy yooyu billaahi boobu kii moo jël làmba jee ne la mu yof moo jël lese bi caatu ngeewee jël luur bi làmba jooju ngay gis noonu man fii làmb ju ma dem jénn ji rek maa seeka ndaanaa ñoo ëpp lu ñuy jénn dem bëri ji maanaam moom parce que moom damay ooyee sama seex maanaam ñoo maase si écurie bi ñooy jénn di bëri ji doo léegi léegi euh, tey si combat nommé Mbapat ñaar combat nga def combat nommé yi bëri na yaa ma gën a xam fii yoof booy di ñuy bëri si combat nommé moo ëpp fu ne bëri naa fay combat nommé na de ëpp na cinq combat nommé na trop parce que yàlla fi mu. léegi yan champion yoo xam si ne laale ngeen ci làmb maam làmb xam na leen nga daan leen wala ñu la à part Bébé Diène bi nga xam fii nii booy ma bëre nii si si lii ay gala fii nii bëriwuñu arène de non non bëriwuñu moom bu dëgga neexee rek ay booy yu mën a bëri rek yu nekk fii nii a nga fii nii yoof ñii bëriwul sax ñoo daax a bëri ñii di bëri amaana hmm. barki alxuraan ñii bàyyi bëri fii ñoo daax a bëri sax ñi ñi ngay gis nii parce que yow dafa mën a bëri dañ mën a bëri loolu moom dafa ne si ñoom. champion yi nekk ci làmb ji xale yoof yi nekk ci làmb ji toj ah bëri na si ku si ni ñoom ñoom ñoom caatu yoof ñoom caatu ngéwal ah bëri na ñoom ñoom bëri na bëri na champion yoo xam ne tey ñu ngi yoof ah comme comme comme ay ñoom doomu yoof ay Modja ah booy booy saf saf nga ne booy mënuñu maanaam ñi la nga xam ne bëriwul ñoo leen dàq ba dañoo nekk ay champion di nekk ay mbër kaamil. mooy li ma lay wax ni am na ñoo xamante ne bëriwuñu suivre ñu bëre dañ mën a bëre ñoo dàq bëre gars yi am na ñoo xamante ne ñu bëri dañ mën a bëri loolu yàlla moo ko def su ñoom am na ñoo xamante ne ñu bëri wante bëri dañ ko man te dañ daa bëri ñoom biñ doonee ay booy wante day am lu loo xamante ne mooy leen tënk ba joti du yam bañ bàyyi bëri ñoom. si euh, li nga xam ne mooy mbapat ñëw sa premier combat arène yow kan la maa si mbaa la booy bu dëkk jaamu gën est-ce mu si mbaa xaman nga ko. non si mbaa mi ngay moom boobu moo nekk comme premier ma jël sama premier combat ma jël ko tamit yaa ma gën a xam waaw loolu kenn mënu si dara quoi yaa ma gën a xam après si laa ko jëlee dem ñu bëre yàlla dogal ma daan ko. léegi biir biir làmb ji nga gis sa adversaire mu simee ma moment boobu lan nga yëg. waaw man bi ma ñëwee si si làmb ji moment boobu sama adversaire simee ko suma supporter yi ma àndoon bi ma geesoo gis naa leen ñoom ñu téye tellement que moom moo ma ëpp ma ne leen booy lii yëfi góor la kii du yàgg ma mu def ma dara ci digg géew bi barke Alxuraan parce que man xam naa suma bopp dama ne kii du yàgg ba mu def ma dara day sóob ma ne kay yaa leen ko gis bët man gisuma ko yàlla xam na ko yàlla rek ma tiim man gisuma woon sa adversaire bi dama jàpp ne kii bu ma duggee dama koy wal dem suma yoon parce que loolu laa gëm voilà. arbitre bi wala ci biir géew bi xool la xool ko ne ndax pare nga nga ne pare nga ah bi arbitre bi wàccee loxoom sifflé noo bëree combat bi. bi mu wàccee loxoom dañ ma lamba ji ki ma àndal sax su ma ko si Abibu maa koy sant di ko gërëm moom sax conseil ma si lamba ji parce que xam na ma. billahi man avant may dem li bëri ji ma petit la petit l'enfant ñoo boo ko jour wax na ma ne ma defal ni ah nii ma ne ko yow tamit sa defal ni ah nii moom moo entraîneur sama combat ma entraîneur ko combat am ma ne ma boo defee ni ah nii di nga jël nam li bu ne ma abdi bi bu ne ma prix mu ne ma booy bi mën na ko ko ragal anéeral nga dem latéral dem gauche nga xool ko moom li ma indi abdi bi mu sifflé man noonu laa def dem latéral dem gauche bu mu am rek ñëw suma kaw ma jóg ko coup gauche firende ko téy ko door ko ñaari uppercut foogu laa ko wàññee uppercut ma ko dóor foogu laa ko wàññee prix mu dem ardo ñëwaat mu ñëwaat songa ma joxaat ko ko mu demaat ardo mu ñëwaat ma dóoraat ko mu sànni protège bi parce que bu ñu duggee si géew bi xam ne na booy bi caaxaanul parce que premier combat la day diis di nga xalaat ba jaar fa jeex wante bi ñu si meekoo bi ñu dalantee xam ne ne ëpp ma doole moo ma yaram nag wante xam ne ne ëpp ma doole dama si daj lu metti billahi gil na ma doon oo téléphone su jour dama ne dem contact ma see ab booy combat bi kenn laa si contactal koo xamante ne ab booy la si écurie bi Secka Ndaanaan ñu si dëñam ay moo jalaa doon di ray suma booba parce que maa amoon lu ma bëgg man dama dama bëgg woon lu bëri se arène bi barke alxuraan xaw ma ndax dina si am wala du ma si am adduna gëm-gëm moo am solo wante su ma demee si arène bi arène nationale bi du ma fa wane ak ñàkk a fayda parce que man ñàkkuma fayda damay guerre ma am jël damay xeex damay bëre du ma si bàyyi dara booy yëpp laa koy wax damay xeex damay bëre booy yëpp laay wax booy du soob yëpp damay xeex damay bëre ay booy du ñoddi ay Franc surtout moom ñu ngi daje si tefes gi Franc mbër mu ngi daje si tefes gi day sóob bu jëlee suma avance ma dóor ko mu rek la moom moom moom laa gën a yàkkam dama koy dóor mu tëdd ah amel loo Petit Lo d'accord d'accord d'accord bala ñu ñëw ci Franc ak Petit Lo léegi sa combat bi noo daane sa adversaire noo nga ko daane adversaire bi dama mu dem na ardo trois fois mu xamatul làmb ji dama koy nuroo parce que dóor yi saf na yàq naa kanam gi ar bi waa na prix mu daw rek mbëkk ma mbëkk amusalam ma fente ko parce que man yàgg nañ ñun yàgg nañ ñoo ëffal fii dañ fi dem nekkal ñuy ba da dem mbayaar gi foofu la jógee dégg ma maama di fecc naa mbayaar du xaadde da ngay ñëw indi mu desee ay wecc doo xàddi boo xàddee rek ñàkk doo récupérer noonu la demee nag voilà. nga nga jógee si victoire muy victoire bu mu solo bi nga ñibbisee fii ak yoof na nga ko dundee victoire. waaw bi ma ñibbisee moom franchement parler waa yoof gépp a jénn man dama am solo ma bett billaahi ñëpp jénn di ñu teeru ma petit l'enfant loolu rek xam nga rek dafa nice billaahi gars yi di ñu teeru billaahi wallaahi taalaay aw ma seen fay ñoom ñëpp booyu ndaw yi fii nii gars yëpp. di ñu teeru ñu kontaan te ñun loolu la ñuy ñaan di leen indi leen ndam saa ñu ngémba ñu dem indi leen parce que ñu couleur Yoff la ñuy défendre défendre ñu kenn couleur Yoff moo ñu ñor barka alxuraan man Yoff lu muy xëccoo rek dama si dama jàpp ne dama si war a bokk billahi lu muy xëccoo rek man dama jàpp ne dama si war a bokk bi naa maa doon a pas am la ma wax ka wax ma wax billahi léegi d'accord léegi yow prip nga tudd fii euh, Franc mbër bi nga xam ne ay morom ñëpp dañ ko fay bàyyi benn combat benn victoire te gis nga combat am day xeex day bëre tag nga ne nga ne nga ne Franc Mbeur pourquoi Franc Mbeur. Franc moom lu doon ma ngay daw kooku. xamante nañ ñu ngi daje si tefes gi bëri naa suñu benn élément fii ba pare ñu daan ka Franc bi nga gis si tefes gi ak Franc bi nekk si biir géew bi boo kuddee. kasi man mbër bi nekk si tefes gi ak Franc Mbeur bi nga gis si biir géew bi boo kuddee. bu suppalakoo si géew bi ma suppalaku bu taxawee ma waaye Franc booy woo day xaar. boo yooyu noonu dañuy ah Petit Lo moom laa gën a soxlaa moom day wër dëkk bi du wëndaalu rek nekk mu toog. day dox rek mbër mu am combat mu dem dugg këram xool lu mu fa ut moom réglé wul moom laa gën a soxlaa moom moo ko amul papi mbër amul dara moom na ñëw petit loo moo ngay gis na ñëw ñu bëri. yow yow yow maanaam ma ah yow da ngaa bëgg xaru wala lan moo lan moo lan moo la lan la lan mooy sa problème yow boo fi nekk naan ay petit loo ñu yaa ngi wax franc pareegu ñuy wax actuellement naan petit loo. petit loo moom xamante nañ barka alxuraan petit loo xamante nañ te booy parcelles yooyu ngay gis xam nañ ma xam nañ koy ama bu baax. Potiloo yow xool da nga leen di xool nga wax ak ñoom. Potiloo xam na ma bu baax a baax demal nekk ndax xam nga Ama bu yof ñëw na fii nii muy contact ma kay oo oh, muy daw naan bëréew maa yow mu dem fële di gis ay nit naan man la bëgg a bëreel aareen man naka bu paree na ñëw ma nekk man du ma def luy yomb bu paree na ñëw ñu rayante déggoo ma de arène bi reyante laa ko tuddee parce que boo yooyu. ah waaw yow yaa yow yaa xam Petit la parce que Petit Lo def na fi loo ay taakusaan yoo xam ñëpp xam na. bëri na benn combat lañ ko fi tànnal ñu tànnal ko Adama Sunkar moogu mu ñëw boote ka boote yooyu yomb yooyu yooyu ka jëla am ndam yooyu boote yooyu mu ñëwaat moo amee redos xaa mu kat ëppi waaye wax ñu la neen waaye nga naan Petit Lo day mbër kooku papa moo doon mbër moo tax muy nganda ngandal dërëm moom yàgg naa ko da daa ñëw ba suma place su may liggéeyee noonu toog foofu noonu. xool combat bu gën a yomb si yow. na ñëw Modou Lo ngemba ko bu ñu boobu ñëw ba bëre Modou Lo da daa daan ñëw suñu kër fii parce que alxuraan Modou saa daa daan fii lay nekk gaa yaa ngi ñëpp Modou Lo day daa daan ñëw fii nii fii suñu néeg su ma néeg yaay Modou Lo toog na fa nii suma jarbaar bi nga ko tuddee mu nga fa barka alxuraanu karim bokk pon moom dama moo tax wax Modou Lo fii la daa ñëw nga ne ma. yow Petit Lo yi ñaar lamb booletu leen parce que comme papaam ak yéen ay ay. lamb boole na ma boo yooyu yëpp de man booy bi Yoff rek laa dul bëreel. booy bi Yoff kase si yooyu de booy bi Yoff kase laa dul bëreel moom. nga jaaxal nga wax ko li man booy bi Yoff kase laa dul bëreel Petit moom na ñëw ñu bëre parce que dama doon laaj daaw bërewul woon muy yóbbante ay nit naan ndax ama day bëre ren pour ñu bëre man ak moom. mu yóbbante ay nit loolu jot naa si maanaam moom du nuyoo sawa sawa lañ seex bu rombee néew romba vëf di ma njaab di xuggal ko ay mbagga man yooyu bëggaju ma sax moo gën a nëpp manul dara ay palaake la man ay botti yooyu bëree paa yooyu. xam nga li mën xam nga li do xam nga li xam nga ne dara. ma yóbbu ko top 5 bu ma palaakee ma yóbbu ko top 5 dinaa ko mbot ba simmi loosam waaye kooku da lay mbër. léegi léegi d' accord léegi d' accord tudd nga fi tudd nga tudd nga fi tudd nga fi Franc Mbeur tudd fi tudd fi Petit Lo waaw léegi léegi ñoom kese nekku ci làmb am na yeneen xale xaar yeneen la ragal boo booy si des mu mën tudd seen tur booy si des duñ bëre ñoom dañuy nekk si média yi topp média yi di wax rek ñoom duñ jël buñ leen joxee avance duñ jël kenn ah, booy yi nga fiy tudd nii ay ay booy Roland yooyu xam ma Laurent la tudd xaw ma nu mu tudd dañuy toog si kanju ci ma bare bëree jàmm gan moo gën a diis magam jooju man bi ma bëree pare magam laa laaj magam liis njaago moom laa laaj. xaru kan si kon lii da adduna dafa am xaru yooyu xaru la. yee boo yooyu gënuñu maa doon jàmbaar ëpp ñu ma fit daa ko ñu ma bëri ñu ma doole. booy ñoo dàq bëri ñoo mbooloo yi ba li nga def. alxuraan booy booy dàqu ma see bëri. boog làmb ji ab booy dàqu ma see ab booy la wax lanaa am nee na yéen booy yëpp benn jooy leen def. kooku ab comédien la. Ronald di mbër di mbër kaa bi nga xam comédien champion. dinaa ma xam ne làmb ji xanaa xamoo dafa am boo xamante ne mbëri comédien yi ñoo fa ne. comme ku ne kan léegi damaa bëgg li ma la mbëri comédien yi ku si mel ne kan. ay Roland su la bokk ay Busita su comédien yi la bokk Théâtre Rebos moom jënd nañ ko si comédien yi. léegi mu ngi xaw a dugg si mbëri tuuti ñoom ñoo ñëpp si comédien yi lañ bokk bëri nañ fi si comme ay bu ndaw yooyu noonu mu ndaw comédien xam ndaw yow ñi ngi fa wax ñëpp ay mbër kaamil nga wax ay Boussita ay ay Thiator Bass ay bu ndaw ñi ngi fa wax ay mbër bi ma koy laaj Boussita bi ma koy laaj su ma managé la ma kii doo bëree moom parce que tolloo na sa ay kilo li nga ko ëppalee kilo bari mu ne ma doo bëree moom Boussita moom ñooñu dañuy ñëw foofu yaa yaa man yooyu gonduma de fii bandi xaju fi boo fi bandi bandi léegi ñu réglé la booy seen ak bandi fa la yem ay Pikine ay Géejawaay yooyu man boo may jaay affaire yi bandi bi bi ñu doon dem maa petit l'enfant matu ñu sa dix personnes ñoo dem booy bële indi fa ay carré dul jeex ma ne ne boo paree booy ñëwee léegi nii ñu maye ko ñu xeexaa yéen boo leen bëggee tout de suite parce que ma taxaw ñoom ñëpp jël leen charge man bi ma bëree ba sa ëllëg sa dama dem stade jour boobu la combat franc ak kële na nu tudd sax Bébé Saloum bi ma bëree samedi dimanche maa ngi foogu dama dem foogu noonu booy jàmm gën ma tasa Liss Ndiago si loolu doon bëre ñu naan booy bale moo doon bëree Simba Demba ama ba yofa ngal ñoom booy jàmm gën yëpp ñëw si man naan booy yow la tellement que xeeb nañ ma damay ñëw foofu mbëri booy bool bool yooyu di ma tënk na ma mën na leen kan dem bëri xës xës cinq mille cinq mille si biti essence sin naa banque naa bu ñëw ñoo ñu dama leen di daan buñ bëri xës xës damay indi jikki babi ji déggoo ma de doo ma sax gañe vraiment ay wax yooyu. seen émission seet mbër SBT Média la ah ñu seet si xale boo xam si ni macha allah mais émission bi moom xam naa def naa fi émission bi mais moom bokk na ci émission yi nga xam ne man ñoo a neex bi ma ñëwee Yoff ndax caatu ngeewal dama ko dóor mu daanu kii euh, nu mu tuddati euh, Seck Ndaanaan moom yaa a xam carte à may mais kii moom xale bi dafa ñëw di dëgërante ak man xam naa moom bii mooy daniel kii bi nga xam ne ci la ñuy dem ma dóor la nga daanu léegi mi ngi noonu SBT la abonné leen bu baax nag léegi fi ne yaa ngi lim say adversaire mais am na koo xam ne limoo ko te man for naa ci yow bëy ne am na combat boo xam ne ñu ngi koy dox sa digganteeg benn xale la moo tax tuddoo xale boobu. boobu ko tudd digga may bës boobu avant mooy bëree la ma toppale. yow da ngaa da ngaa am waaye boobu man booy su ma ñëwee si lamba ji boo yëpp amay singari de. yee dama laaj promoteur bi ma tëggaloon dama laaj ko. non booy dañoo xam ne da ngaa gën a ñu bëgg jaar ci yow génn. non booy boobu parce que signature ba yaa nga fa. bi mu naan damay tënk ma ne ko dama lay rey boo ma tënkee léegi dama lay dóor nga faatu. man man ban signature ban signature dama koo fek waaw ma wax ma ne dama lay dóor léegi nga dee. ma ne ko bay maytuma boo yooyu ngay gis noonu man ma boo yooyu topp foofu di wax de. d'accord bi ñu lay wax adversaire bi ñu lay wax te ñemewu ko tudd adversaire bi. boobu xaaral combat bi ñoom man pare naa suma côté pare naa ñoom ñoo des ñoom ñoo ma oowoon pour bëgg combat bi ma ne leen pare naa après si jour boobu si laa ñëwaatee fële. après ma ne leen dem leen waxaa suma manager léegi promoteur bi oo na suma manager instant ñoom ñaar ñoo nekk si waxaale waaw léegi booy boobu moom bu jotee rek maanaam moom dañuy bëri loolu dafa leer. lan moo tax ñi moo tur tur booy bi tudd nga fi tur ay ay tur mais lan moo tax waaw ko. tur bi moo ñaaw moo tax <laughs> ay jee jaama yooyu booy boobu. waaw kay yow laa koy wax yow rek ama yow fi nga toog nii yow ñeme ngaa lekk avance jeex jàmm jeex jàmm lan la wax de nga bëgg a lekk avance ñeme nga lool jéejaam ndax ñeme naa lekk avance am kooku moom damay rey baa ma rey rek kooku damay rey rek baa ma rey ka billaahi ñu kooku mu daan ma dee sax mu ko gënal jéejaam moom barka Seydina Muhammad mu daan ma dee sax mu ko gënal. yëpp nee nañ bu dee bëre moo la ëpp bëre bi bu dee xeex moo la ëpp xeex bi ah moo la ëpp mbooloo làmb jo lan nga si am kon. sut jéejaam moom ëpp mbooloo. fi mu nekkon ay supporteurs man su may supporter foofu lañ nekkoon fi mu tegoon ni supporter duy ko foog laa teg su may ko yaa dégg te buñ manaa moom ah ñu fa eggee bis ba dina xam ku ëpp mbooloo maanaam wala ko ëpp doole. ñima ngaa ñima ngaa ñima ngaa taxaw maanaam maanaam taxaw ci biir géej bi xeex jeex jàmm yow bu arbitre bi siffle moom moom loolu loolu mooy ndax géej ji am na ndox loolu mooy ndax géej ji am na ndox gaal yaa ngi see dugg taxaw xeex nii loolu moom lu ñuy waxaal la prib man su ma jàppee damay dóor prib damay dóor prib tip damay dóor fos moo ma taa dal sa kaw damay dóor ku mooy ñëwaale loolu moom dafa nekk si man prix dama lay dóor ah nu mu mënti demee damay dóor man déggoo ma de xaw ma kii nga li woon làmba ji xaw ma Paul xaw ma nu mu tuddati kii toogoon foofu solo Salvador kii dama interrogé noonu mu naa ah, ay dama lay yóbbu Palmarin ay ma ne ko yóbbu ma foo xelaat ma man yóbbu ma foo xelaat nga ne ma ay Palmarin man yoof laay ngémbo dégg nga waa yoof ñoo ma ngémba mu ne ma ay Palmarin. ñoo yor ñoo yor bës bi de. yóbbu ma Palmarin tax mu jàpp ñaati palma mbërëm palmarin man moo fi siw si bi waxal beneen mbërëm palmarin moo fi siw. bëri fi yëpp palmarin la ñu sangoo. mooy mbëri fi siw yow sangoo fii yoof gi